góobee fu ne rek ñu jëm ko ñun nag instant bi ñu ci APR ba luñ ci góobee gaaw li tax nag ak li tax li waral ñu ànd ak moom mooy dañoo bëgg courant bëgg ndox hmm. ndax ñun instant bi dañoo root ba sonn jënd nañ ndox def nañ ñu ne ku ñu gis sax xam ni ñun dañoo root ba sonn li ñu bëgg nag mooy ndox ak courant financé jigéen ñu liggéey ndax ñun fajar la ñuy li ñu bëgg nag mooy ngeen jàppale ñu ñun ku ñu jàppale ñu jàppale la. courant lañ bëgg ak ndox ndax courant bi bu ko dee ñu ñoo yónnee suñu doom yi suñu doom bu ñu leen yónnee ñu ne ñemewul ndax ragal fi ñun nag ñun jigéen ñi Touba woor nañ ba bëgg a dee ndax am na koñ yoo xam ne amuñu ndox bu loolu jàllee ñu ngi lay sàkku ndimbal luñ liggéeyee su loolu jàll jigéen ñi bu ñu xëyee ay bisaab la ñuy jaayi bu loolu jógee bu nawet bu loolu bi jotee ñu dem ci gerte yi di xool ñu leen fay kilo juróomi dërëm ndax ñun ñi dafa nekkoon dañ faa bàyyi ñëw jàppale leen dañoo laxasaayu woon takkaayu ba kañ àndaloon gañe muy Pape Sall Modou Ngom ak Omar Ly yéen nag xamante wuñ ma maa ngi yéen a dëkk ah, man maa ngi dëkk fii ci rond point bi kon lii xew ci bureau bii ci héliport bi lépp yëg naa dëgg la vraiment ku leen ñàkki bu ci leen ku leen amit dana leen téye ndax xam nañ li ngeen mën waaye li ma jàngat ci jataay bi mooy am ngeen fit juba ngeen seeni bopp ji ngeen leen ngor parce que lii ku ñë ku amul fit jubawoo say bokk ñëwewoo man loolu laa leen gën a jàppee parce que woote fii laa nekkoon dem naa fii wax ko ci sa biiri bokk te nit yoo xoowu la yombul ci jamono ji ñu gis xam naa ne bokk gis-gis moom dañ ko wax waaye boo amee mbooloo mu nekk sa ginnaaw ñu am ñu soxla te ñi nga nekk mënaluñ ko léegi boo gis gi tas tasaaroo damay wax nag dafa am loo xam ne si ñun ñëpp ñu yëgu ci pël dañ ko war a xam boo amee xel di xalaat ndax état dañoo nekk ci réew mu organisé ñu bokk kook suñu nawle koo xëy yor kër dafa sa yitte ñibbisi nit ñi wax la soxla nga xool ba xam man nga wala mënoo waaw nooy bokkee cim réew ñuy fal ku toll ne président tam leer nañu ñu ñëpp bàyyi si la mais mën naa koo laaj ndax man mosuma dégg benn dëkk ñu ne courant ba fa nekk ndox ma fa nekk opo opposition ko fa yow amul ndax mas na am amul waaw ginnaaw nu mënuloo ñàkk courant mënuloo ñàkk ndox te ñun loolu rek lañ am ci état amuñu ci leneen état li muy siiw siiw amuñu ci dudul courant ndox bu ñu feebaree faju jigéen ñi am luñ liggéeyee keneen amu ci leneen ci ñi waaw mais loolu état moo ko man waa léegi loo koy wane ginnaaw ngir day xalaat waaw léegi soo ko wanee ginaaw ñuy séddale sa doom dem fa bu demee day ñaan wala day wala day laaj wàllam day ñaan te bu ñaan day sëgg àdduna xel a ko yor xel état li muy rëy rëy rëy rëy bu ko président bi dëkkoon daaru sawit amu ci lu weesu loolu teli ndox courant financement ku bëgg a tukki ba àddunay tukki opposition du ko def ci dëkk ñun nag bu ñu amee njaboot te mun noo xaar kenn dañuy ànd ak ki koy def ndax nun loolu rek lañ ci am amu leen ci leneen kon nag dëgg la tàmbali dina am waaye bis na tey comme ñëw ngeen ci APR damay wax euh, man jour jaar muy dama ah, de ni kenn dootu ko de ndax ko ne fa bu ubbi ko ñu ah, bu ñu wax kon yéen mel na ne Macky leen njëkk a si avant ngeen koy wuti